Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax a baax di amaat mbégte jàkkaarloowaat ak yéen fii ci suñu journal de l'arène journal de l'arène nag comme niñ koy faral di defee ah dama ciy ànd toujours ak sama góor sama càmmiñ <laughs> di Babacar Babacar nuyu naa la. <laughs> Babacar mu mel ni tayaat encore tey dañoo génnaat encore ci ver man ak yow déggoowaat. waaw waaw waaw waaw olof dana am lu muy faral di leen. Uh-huh. ginnaaw bu mu nuyu téléspectateurs yi ba pare ñaanal leen jàmm si yàlla si àjjuma dëgg la mooy loolu quoi macha allah tamit sa robe bi moom. Ah. merci Babacar tey moom li nga solo naaj na fi nga génn baax na trop. waaw kontaan naa ci yow. à la sénégalaise moom maa gën a bëgg tey moom maa gën a kontaan tey. <laughs> ay ca mbokki téléspectateurs yi ñu dem seetaani suñu revue des titres te ñëwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. vendredi 19 mars 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu lamb moom tey xëtam mu njëkk la ca xëy fës mooy la nga xam ne moo war am la 4 avril te Sénégal yépp di ko xaar mu war a dox ci diggante ma seen mu Pékin Lac de Guiers numéro 2 mu Guédiawaye sunu lamb nag moom que mu xëy doxaleen seenu diggante maanaam modèle atte daal wala muy wax xalaatam ca combat ba mooy Max Mbargane directeur technique ko écrit Lansar Max nag moom la mu gis daal jàpp na ne ñaari mbër yi bañ ko laaj laajee ne bu dee Eumeu Sène la moom mbër la moo xam ne maanaam Eumeu daal Père Max daa jàpp ne mbër mu complet la maanaam foo ko laal rek mën na faa demee foo ko woo mu wuyu la loolu la gis tey ci nga xam ne nii moom moo di Eumeu Sène bu dee Lac de Guiers numéro 2 moom Père Max daa jàpp ne coriace la def maanaam mbër la moo xam ne dëgër na gën xeetu dëgër goo xam ne Père Max ne na itam te la ca des mooy Lac de Guiers numéro 2 nekkul mbër moo xam ne moo xam ne day jaay ay combat maanaam di ko wanteer déeréet Père Max daa jàpp ne Lac moom lu muy def ci aw yoon la koy teg da xool ba mu doy ko mu door koo def moo tax daal Père Max jàpp na ne cinquante cinquante moo am ci boobu komba amul favori loolu la sunu naan mu tey xëy fesal nu ko ci xëtam mu njëkk ci boobu combat ñeneen ñoo xam ne tamit boo bëggee dégg-dégg ay mbër lañu nekk ci làmb ji wala keneen koo xam ne mbër la muy ondu la fu ondu daal moom la mu gis daal Gris Bordeaux daal la xëy daal tey kawam Gris daal on na ko nga arrêté di xëy di wax ci mbër yi naan maa yore président mbër yeeg yu mel ne kii noonu te tamit li ngay wax nii ak li am demewul noonu on la fu daal Gris la bëgg mu arrêté ndax nag jàpp na ne ni muy doxale fan nii moom neexul wala neexu leen jekkul itam te jaaruwul du sama ay wax waxi ond la fu la leneen loo xam ne nii wala meneen mbër moo xam ne nii moom na muy doxale ci bii combat ngir mu jik ko mooy mu am ca ndam yëglikaay bi ne na mooy Modou Anta digganteem ak Diène Kaïré le 4 avril la ñu war a bëre yëglikaay bi nag lam ñu xamal daal nee na am na ay mbir yoo xam ne moo war a mën a tax mu du anta fexe ba boobu combat mu génn ca ak ndam leneen lu mu def lu dul loola rek su keroogee mën naa def lu ko jiga di ña nga xam ne nag moom su bëree amee ñoo koy siffler wala bu ñu sifflewul bëree du am muy arbitre ya mel ni ki nag réunion ba nga xam ne amoon na ca CNC mbir yi arbitre yi daal fi mu nekk nii seen ay condition daal daa mel ni gën nañ koo defar ba mu gën a baax ba tax na daal ku yebu xaar leen daal xam ne Malick Ngom Babacar ak ña ca des ak ñoom Sitor boo bëggee dégg dëgg daa mel ni su mbir yi waree bëre ñoom ñooy soufflé ngir ñu door a bëre ñeneen ñoo xam ne ni moom soufflé nañu ba ñu bëre ba pare muy fa nga xam ne moom moo di ca Kaolack muy Bira Sène ak équipe ba mu jiite woon di CRC ba te ñu jëlee ko fa léegi jox ko làmbi réew mi ka ko jël nag place ba mu yoroon mooy ka nga xam ne moom mooy Maam Koor Fay mel ni ki nag démb daal lañ doon def mbir ma ca gouverneur wala boog gouvernance ba nekk fa nga xam ne moo de ca Kaolack yëglikaay bi xëy na tey wan ñu leen ñu taxaw ñoom ñooñu bu buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di record record nag moom daa ñëwati ci diggante ba tey Eumeu Sène ak Lac de Guiers de 2 ka xëy di fa wax nag moom mooy Babacar Diop déeba arbitre jàpp na ne ndam la nga xam ne Eumeu seen amoon na ko ci kaw ka nga xam ne moom moo di lag daal ñoom arbitre yi ñoo ko proclamé woon maanaam daal ñoom trio arbitre ba ñoo ca d'accordoon ba joxe ndam la loolu Babacar moo xëy di ko wax dat ba nga xam ne nag ca la ñu war a bëree muy le 4 avril mu mel ni ki boo bëggee dégg-dëgg date la boo xam ne bu historique la ci làmb ndax yéen a ngi fàttaliku Yékini Tyson Modou Lo Lac de lépp ay 4 avril la amoon ak yeneen combat yoo xam ne record xëy na tey toppal ñu ko muy ay bés yoo xam ne daal boo bëggee dégg-dégg maanaam 4 avril. ca la amoon si tabu lan saar tamit mas na caa bëri digganteem ak zos la 4 avril la loola amoon ba tey mel ni ki ba tey yëglikaay ba yemu ci gàmmu géey bu lébu gi ak kulifay numéro 2 tamit bu caaroy bëri nañ fi bisu 4 avril mu mel ni ki daal 4 avril date la boo xam ne bu historique la ci làmb keneen koo xam ne nii moom génn na làmb ji bay nekk ca leneen di ca jongante muy MMA muy bombar ji yëglikaay bi nañ fi mu nekk ni daal mu nga ca Pologne ka war a dajal nag muy Polonski daal boo bëggee dégg-dégg ñoom ñaar invité nañ leen ca télé Pologne ya jàkkaarloo waxante diggante ku ci nekk wax sa moroom la nga ko fas yéenee def bu ngeen yeggee ci la nga xam ne nii moom moo di bés ba Jax moom fa mu waxee moo di Equivox TV la mu xam ne daal nee na galam bi ñu wax nan da koy tëgg du ko tëgg Jax nee na maa koy tëgg ba mu neex nee na dimanche ji daal ku nam lamb di ginnaaw suba ñëwal fa nga xam ne moo di terrain gaal gi ndax teg na fa deux millions cinq cent te Mbayang Loum dana fa way mu moo ngom dana tëgg mbër ya bindu si mbër muy ñëw itam Jax avertir na la nee na boo xëyee suba teel ñëwal ndax foofoo bés ba fa la defar sa licence maanaam jox la ko nga am ko te booy ñëw itam nag sa licence su daaw ba nga xam ne moom nga yore woon booyee boo nga ëndaale ko maanaam suba teel teel teel indil sa licence yor sa mille francs ak sa licence su daaw su ko defee ñu renouveler la sa licence jàk moo wax loolu ak yeneen yoo xam ne wax na ko ministre Malick Sall samit may justice ba ak tuub ba mu tuubal mbëri wala jéglu ba jàk sa daa jàpp ne loolu teguwut ci aw yoon ndax nag kilifa gu tol noonu waruna taxaw naan day jéggulu fees ci ñëpp di ci jot waaye tey nag fa may jeexale xulle fenn la ku ne xam na ne tey la àjjuma gis nga xulle taalibe Baay Ñas na mu solo gis nga Habib mu sëñ Babacar Si na mu solo waaye nag tey ki nga xam ne nii mooy sama làngandoo bi xam moom ne moom xaritu xol la ndax nag li ko waral fu ma génn mu génn fa ca des muy Oulimata Seck tey weer la def la mu def ci vax à la man lii laa bëgg ci femme sénégalaise xulle voilà mu doonoon donc suñu revue des titres ah ñu doon ko amal ak Babacar euh, comme ni koy faral di defee saa ne dañuy ubbi tey ji ak suñu euh, làmb sunu làmb nday nag euh, à la une ci quotidien bi dafay wax ci ki nga xam ni moo di Max Mbargane moom nag mu daal di exprimer wu ne tey Max Mbargane sur le choc du 4 avril c'est-à-dire que pour diggante kii di Eumeu Sène et mu ne diggante Eumeu Sène ak Lac 2 moom nag Max Mbargane mu ne ëmma euh, est complet Lac et coriace maanaam Babacar ëmma mot na Lac de Guiers moom it dafa dëgër dafa dëgër mm. waaw loolu la xam naa moo tax bu ñu dajee dina metti kooku wax nag moom mooy suñu père Max Bargat ñu koy nuyu di koy ziar incha allah encore euh, une technique lan saa di technicien bu mag formé ay mbër yu baree baree baree bëri mhm. ndax defe naa maa formé si tanees ak ñoom fëgg la mhm. ak ñoom Tidiane Faye rek doy na mhm. kon kooku war na mën wax si lamba tey nag su ñëwee wax si combat bi xam le ne ëmma mbër mu complet la maanaam ça veut dire fi muy waxee mooy ci xeex ak ci bëri lépp ëmma seen daf ci aay parce mhm. que li ko waral tamit mooy Eumeu Sène nëkk na gi nga xam ne international comme ni ñu koy waxee mhm. maanaam défendre na couleur Sénégal mhm. ndax bokk na équipe nationale

Mm-hmm. wala nangam ak sangam ça veut dire que day entraîné ba nekk ca nekk mbër moo xam ne tamit bari lu mu denc ci bëre mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. donte ci nit ñi li ñuy gis da dañuy mën nañu am nañuy xalaat ne sax ëmma moo dàq bëri wala nangam mais lagit am na ay fas liggéeykat la waaw non parce que li tax mooy benn defet la am ci làmb te ëmma si moo ko yóbbee te bëri na lu mu bëri kon ça veut dire que am na lu mu xam ci bëre moo tax la 4 avril daal kon mën nañ jàpp <laughs> nekk ci kii di Onde le Fou moom mu ne euh, il met en garde le troisième tigre de Fass c'est-à-dire moom nee na que euh, Gris Bordeaux il doit arrêter de parler au nom des lutteurs maanaam euh, Gris Bordeaux dafa war bàyyi di wax ci turu mbër yi. waaw loolu de Onde la Fou bu ko waxee dama naan ku si ne am nga droit wax sa xalaat ak sa sañ ak li nga bokk mhm. parce que mbër la ni ñoom yore licence mhm. di mbër bu mag mhm. yaa ngi dégg donte xëy na tey amul niveau bi ñoom Gris Bordeaux am ci làmb parce que yàllaay séddale waaye mbër mu a bëre la di xale boo xam ne da wax macha allah euh, di doomu Pikine ah li am solo nag mooy xëy na loolu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ay mbër mhm. am seen kuréel ñoom ñooy dem toog ak seen président mhm. wala kay ñu jàpp ne moom mu leen jiite mhm. wax ak moom bu fekkente ne dafay def loo xam ne jàpp nañ ne lii bénguwul ak li am parce tamit gis naa sax keneen ku génn def sortie mais yaakaar naa ne ñoom ñoom ñoom ay mbër la ñu yor ay licence mhm. bu fekkente ne Gris Bordeaux leen a jiite ci ni leen jiitee dudul légitime mhm. war nañ ko teel a wax nit ñi ñu xam mhm. mais li ñu fi dégg ba ñun am ko comme information ba fii Khadim Gadiaga jógee nekkul seen président defe naa Gris Bordeaux lañ falaat mu jiite leen ñun ci li ñu am ba gis nañ à chaque instant woote yi ñu fi def pour ñu ubbi làmb ji fa nga xam ne moo doon ca Almadi kere mbër yi parce que ba bëri ki démb bi ñuy dajee TFM ak Pape Cheikh Diallo daje feeg Bekaay mbay daje waat feeg Malick sàll la ca des nag ñun xamuñu ko olof nag nee na sëb la la ko bënd nga ca biir waaye ñun daal jàmm lañ bëgg mu ci réew mi ñun Babacar say proverbe olof moo may daaneel. waaw waaw waaw olof yi dinañ jéggil sax mboq wàll di ñàkk ñu xam ne may wax. ay ca dañ ko bëri ca biir lay nekk. <laughs> mënuma cee jaaraat. dañuy dañuy dañuy dañuy continuer ah, ak combat euh, Modou Anta contre. Euh, Diène Kairé euh, pour le 4 avril loolu la les raisons de vaincre moom la Modou kii Diène Kairé. waaw moom la sunu làmb xëy tey bindal Modou Anta. Mhm. waaw li tax mu war a daan. waa bëri na parce que li tax mooy que ni moom dafa nekk mbër moo xam ne bu ñu leen xoolee moo Diène Kaïré ci côté palmarès ku li matal mhm. wax dëgg bokkuñu palmarès te Diène nangu na loolu estafam nangu nañ ko ay supporteram nangu nañ ko ndax Moodu Anta. Mhm. mbër mën na ko tey ëpp tur sax ci làmb mais doo ko ëpp les victoire te itam combat yu métti lay bëri muy mbër moo xam ne mbër champion bu mag a mag la. macha allah mhm. defe naa nag tey bu fekkente ne ñiñ ne dafa waroon a bëri ak ñoom bëriwul ak ñoom ba tey mu jël mhm. ah, am tamit mbër mu mag. dëgg la Moodu Anta ku ko daan ci làmb di xale. jàppal ni daan nga bun bu mag a mag ndax loolu la wane ci làmb ji du ragal mhm. mën naa bëre dogu na te lu muy def itam da cay sóobu ba nga xam ne kii mu ngi ci biir muy dëgg Babacar dañuy daal di euh, ñëw ci réunion bi nga xamante ni moo amoon ca CNG pour démarrage euh, lii di euh, arbitre yi nag ñu ne les condition des arbitres améliorées c'est-à-dire que ñoom fu mu ne nii daal daa mel ni démb dañ doon ñaxtu. Mm, waaw lu ne waaw am na lu ñu gisoon <laughs> démb. waaw gisoon nañ kenn arbitre moom boo saaga ñu dellu beneen grève mais daa mel ni tey li ñu xëy gisaat mooy ah daa mel ni mujj na jaar yoon maanaam nañu <laughs> mm-hmm. mbir ya waxtaan am na mm-hmm. parce comme li may wax gis nga àddina bu ñu bañee mu metti dañuy waxtaan mhm. waaw nit ak ña nga jiite mhm. del waxtaan ak ñoom mhm. kër ga kaka yore nay waxtaan ak waa kër ga olimata del waxtaan ak seen waa kër di waxtaan ak say frère di waxtaan ak say mbokk di waxtaan ak ñu ngay liggéey doon maanaam ci loolu ngeen di retrouver la nga xam ne moom mooy solution bi tax ngeen man a dox jëm si kanam yaa ngi dégg kon defe naa waxtaan moo am ba lii mën a am alhamdulilah la ñuy wax parce que la maam da baax doon wax na yàlla def ñu tàppe xol yi wala yàlla na yàlla tàppe yi ba a ànd te di waxante mm. dëgg di dimbalante parce que loolu rek moo am solo quoi. dëgg la dafay mais ci des yëpp daf ñuy tardé. dafay gën a firndeel rek li olof Njaay di wax tamit ne réeroo amul ñàkk waxtaan. looloo am foo gis réeroo waxtaan amu fa te garabu réeroo <laughs> ah c'est mignon waxtaan a koy daaneel. dëgg la Babacar CRG bu Kaolack dafa mel ni installation nouveau bureau am na fa waxoon nañ ko démb itam fii ci suñu làmb ne kii di Bira Sène moom félicité na kii di euh, Mam Koor euh, mi nga xam ni moo ko remplacé daal ci. muy lu waaw muy lu rafet Oulimata parce que tamit Bira nekk na fa ay at di doxal làmb tey mu jiite làmb Sénégal loolu moo la nekkoon moom nekkul ku niil. Mhm. ndax koo xam ne ab raison lañ la joxoon nga gérer ko. Mhm. tey ñu dem ba jox la réew mi yëpp nga gérer lu fiy làmb. Mhm. kon jiital ko mu yore làmb ji kaka mhm. xa kaka fa remplace tamit di Mampor Faye mhm. ah ñu koy ñaanal yàlla la nga xam ne Bira def na ko fa mhm. yàlla na fa def lu ko ëpp parce que tamit loolu la ñuy ñaanal ki képp kuñ jox place nga remplacer fa sa morom Bira tamit fa fi mu ñëw bi muy CNC bi yore làmb réew bi yàlla na fi def lu raw li nga xam ne moom la fi Alioune Sarr defa yaa rabbi Babacar dañuy jeexal donc suñu quotidien suñu làmb daal di dal ci fii di le record Euh, Babacar Diop arbitre euh, combat bu 2012 mm. victoire de Eumeu Sène sur l'acte 2 a été proclamée par le trio dafa mel ni euh, arbitre bi voilà moom moo daal di firndeel mën nañu wax ni moo firndeel voilà combat wu moo ko wax bokk waaw Babacar moom moo wax ne daal maanaam ñoom arbitre ñoom ñoo proclamé woon victoire ci seen waxtaan ñoom trio arbitre bi mm-hmm. parce que Babacar bi arbitre bu mag la ñoom maanaam combat bi ñoom ñoo ko arbitré woon. ça veut dire que xam nga combat bi bi ah bi ñu xeexee ñu àtte leen. Mhm. ñu dellu si waat yaa ngi dégg. Mhm. ñu sànn euh, weccoontewaat ay loxo ëmma mhm. seen daw tiblank tànk Lac de Guiers 2 dëj ko mhm. ci dëj boobu nag action bi dafa gaaw dafa gaaw waaw mu amoon xanaa ay waaw waaw amoon na moom loolu amoon na ci parce que dëgg itam dëgg du amoon na ay est waa ji fes bi mhm. euh, laal na wala est bopp fes bi bi muy laal bopp ëmma ñëw dak yooyu mais arbitre yi comme ñoom ñoo ñu gën a jege action bi te ñoom ñooy àtte ñoom nag ñoom ñoo àtte da nekk kii di ëmma seen daan na Lac de Guiers la Babacar Diop xëy tey di ko seen VAR. waaw waaw waaw waaw moo VAR la parce que moo arbitré te arbitre yi ñoom ñooy dem VAR. <laughs> dëgg la Babacar. <laughs> ca Babacar tey nag euh, le record ñëwaat ci lii di gala euh, indépendance yi mu mel ni donc euh, dafa am événement yu bëri yu bëri yi nga xamante ni dañoo marqué làmb ji jouru indépendance Sénégal lay dajeel c'est-à-dire tey jii mu ngi sutee lu mel ni Yékini Tyson Modou Lo Lac 2 Lac Euh, ay euh, nu mu tudd Eumeu Sène lak maanaam bari na daal. baaxul de. yow damaa jaxase yëpp ñaari rek nga waroon. Eumeu Sène lak de ak Modou Lo boo cité ñaari yi rek. après li ci des man maa xëy kii quoi. ok c'est bon yow cité ñaar yooyu rek ñaar yi mu la bindal ni ci indi ci kaw rek. ay ayca Babacar dañuy dellu bu ñu fa jógee dañuy ñëwaat rek ci record record nag tey wax ci gala de l'indépendance yi maanaam tey ci événement yi nga xamante ni mhm. marqué na làmb te mu mu déroulé wu si jouru 4 avril muy feetu indépendance bu Sénégal mhm. ci mel ni diggante Yékini Tyson Modou Lo ak Lac 2 waaw muy bés boo xam ne wala bés yoo xam ne ni bés yu marqué sénégalais yi la mhm. parce que li tax mooy indépendance ku ne xam ne ne mille neuf 4 avril. la ñu amoon indépendance. Mm-hmm. loolu la ñu wax. Mm-hmm. <laughs> yaa ngi dégg moo tax saa jamono bu dikkee rek Oulimata dañ ci tëgg faral di tëgg ay làmb yu mag a mag a mag. Mm-hmm. noonu la ko yëglikaay bi limbale. ëpp na sax loolu ndax gis nga lim la defal nii yépp dëgg la ay gala. ay gala 4 euh, avril la. yaa ngi dégg gis nga datu 4 avril. 25 décembre. ah 31 janvier. 31 mhm. décembre 31 décembre. Mhm. ba 1er janvier. Mhm. ba 31 juillet. date yi moom ay date yu historique la mos a. ay événements yu rëy rëy bien sûr yàgg nañ ci am ay événement lamb yu mag. parce que 31 juillet. ku ne xam na ne saison bi ci la daan tëj normal. moo yoo xam ne bés yu la si làmb quoi. dëgg la Babacar dañuy jeexalee rek euh, ci record ci li nga xamante ni euh, mooy diggante kii di bombardier euh, ñu ne bombardier a croisé Pudzianowski turam bi nag mu doon lu naqaree. waaye tur bi kay naqare na loolu waaye mu naqaree yàlla nañ ko ni dóore bay. amiin yaa bi Babacar. ba ba mu nooy nepp daal. amiin parce que lu tax. ñun duñu ay polonais ay sénégalais la ñu dëkk fii ci Afrique fii. Mhm. di ay der yu ñuul bañu nag der yu weex yi parce que ñun ñëpp ay jaami suñu borom lanu mhm. waaye nag ku ne li la gën a jege. Mhm. olof ne na lu gën a jege gën a yey. bomba ji lañ dëkkal muy dëkk fii ci Mbour yaakaar naa ne wane lu leer a leer ci làmb ji. ba tax na tey mu dugg ci ci wane boppam ki mu am nag adversaire de taille ndax ñun gis nañ ko gis nañ ay vidéo wax dëgg yàlla du ko yomb. li ci am solo rek mooy Bombardier moom xam nañ ci moom fulla ak fayda ak. sportivité boo xam ne nii. Mhm. ak niveau de sportif boo xam ne nii yaakaar naa ne. bu affronté kii tey xalaat naa ne. Mhm. bis bu ñu jàkkaarloo xa ndam la. bu ñëwee Sénégal du ma bett te maa koy ñaanal bombal. amiin yaa rabbi ñu koy ñaanal rek ndam ci kaw kii ah. Mhm. di Pologne la de. waaw Pologne Pologne la amee ca côté Allemagne. voilà donc di ko wax itam mu bañ a naagu rek ndax adversaire de taille la itam. <laughs> naagu daagu sax wala <laughs> dëgg la Babacar donc mu mel ni démb euh, demoon nga waaw jàpp si production. Modou mhm. Jaxate mhm. parce que li taxoon ñu seeti ko lenn la rek comme Babacar moom bu génnee ci biti dañ koy laaj lu xew ci làmb ji des dañ may dogal des laaj ma. Mhm. Ah, bi ñu may laaj ndax day tëgg dimanche day tëgg dimanche ma ne ah comme laaj ci bëri léegi man xaaral. comme sama kàddu gi maanaam bu ma waxee ak nit ñi kese ci mbedd mi du sori. mais bu ma waxee ci micro Equivox ñëpp dinañ ma dégg. dëgg allah rabbi ma demal leen ci ma dem ci moom laaj ko mu confirmer mel ne day tëgg dimanche. Mhm. muy ginnaaw suba. Mhm. terrain gaal gi deux millions cinq cent. Mhm. yaa ngi dégg loolu defe naa ku demee Equivox vidéo ba mu nga fa. di nga dégg la Jax wax yépp yépp ci licence yeeg yooyu yi tamit lim ci xamle mooy comme saison bi dafa ni ni ñu ko ubbee nii mu jàmp ak dimanche nga war a tëgg. yaa dégg xam nga ko renouvellement licence dina am. mais maanaam mbëri bu ñu xëyee matinal bi la ñuy dem terrain gaal gi indaale seen licence su daaw yi ñu bëree woon mhm. ak seen ay trois mille francs bu ñu ko indee nag loolu la ñuy joxe ñu renouveler leen foofu seen licence bu ko defee ñu mën a bindu bëree 64 litres tamit la wax ne moom la CNC joxe ñooy bëri. dëgg la luur bi 30 euh, la léger bi 32. dëgg la mu doon lu am njëriñ bu baax a baax voilà donc moo nekkoon euh, élément bi constitué suñu dernier moo nekkoon li constitué suñu dernier élément bu journal de l'arène donc euh, dañuy jaajëfalaat rek suñu téléspectateurs Equivox TV yi nga xamante ni saa su ne dañuy jàkkaarloo ak ñun Babacar lan ngay tàggatoo tey. waaw di kontaan encore une fois xam nga laa mbégte la macha allah parce que tamit waaw comme ni ma ko doon waxee rek. Mhm. jigéen nga macha allah mais bi tamit euh, xam nga ni neex dara da ci am solo. Mhm. te loolu ngay wane à chaque instant te loolu dafa am solo day tamit wane yar. Mhm. te loolu dañ la ñaanal yàlla rek yàlla sàmm la. ci loolu parce que ab yar moom. dafa am solo trop trop trop trop si doomu aadama kon maa ngi lay bégee di nuyu si ay parents parce que loo gis rek. am na lu ko waral. Euh, xëy na parents yi ñooy def loolu ci yow kon parents yi ñu leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu say mbokk yi di nuyu say xarit mais tamit la ñawal naxu la <laughs> jërëjëf la ko takkal ma solal tamit fa mu nuyu ko muy Rimka taalibu sëñ Abdou Karim borom Touba koy nuyu parce que moom moo ñaw li ba mu rafet mu sol mu jox ma ko di nuyu xaritam doomu ndayam bi ma boole ak moom parce que ki tax nga xam ku baax kooku ku baax la mm-hmm. muy Samba Kara taalibe maam Thierno. Mhm. Samba Kara bu Géejawaay. ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax. Mhm. nuyu sama soppe yëpp ñoom tuuti yaay Sarr Khadiros ñoom ñu ngi Allemagne ak mhm. Italie Espagne. ah ñoom Fatma Fall borom le 19 mars tey lay fête anniversaire am. Mm-hmm. di ko happy birthday. joyeux anniversaire mais kenn du abi l'infatigable laa ko tudd xam nga man da nga ne l'incontournable mais moom l'infatigable. <laughs> dëgg la moom liggéey rek lay def te du wax. moom moo doon mais tamit. suñu waaw yaru na lool suñu góor. macha allah <laughs> macha allah donc euh, voilà ci loolu la ñuy euh, tàggatoo ak yéen di leen jox rek dig daje ah ëllëg incha allah ci journal de l'arène.